أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi bëgg a waxtaane benn tomb boo xam ne tomb bu ñu war a yitteel la bu ñu war a ñor la bu ñu war a toppatoo la pour kenn ku nekk ci ñun nga góorgóor loolu nekk ci yow mooy lan bëggante ngir yàlla subhanahu wa taala bëggante ngir yàlla benn place la bu yaatu barab la boo xam ne bu yaatu la waaye suuf su la suuf la soo xam ne aussi suuf su yaatu la gàncax gi nga xam ne moo fa war a sax ci suuf soosu mooy dafa war a nekk dëgg ak sellal kon li war a lal bëggante ngir yàlla alxubbu fillah li ko war a lal mooy as-sidq wal ixlaas mooy dëggu ak sellal su fekkente ne bëggante ngir yàlla tool bu yaatu la garab yi fa war a sax nekk dëggu ak sellal kon ndox mi ko war a roose mooy atawaasi bil xaq mooy dénkante dëgg jullit bi ñi muy bëgganteel ngir yàlla na ko dëgglal ak sellal mooy loolu pour mu màgg continuer sax samp dëgër lu koy waral mooy dénkante dëgg garab yooyu di sax ci tool bi nga xam ne ñu ngi koy roosee ndox moomu nekk dénkante dëgg kon meññeef yi fa war a sax dafa war a nekk xusnul xulq ji koy rafet kon bëggante ngir yàlla tool la bu yaatu garab yi nga xam ne ñoo fay sax mooy garabu dëggu ak sellal ndox miñ koy roosee nekk dénkante dëgg fruit yi war a génn ci tool boobu nekk jikko ju rafet waaye gardien bi war a garder tool bi moo war a nekk addu'a ku nekk ngay ñaanal sa mbokk jullit kon ci baat yu ndaw yi yi ñu tënk su fekkoon ne fii lañ ko yemal rek doon na nekk xéewal ci ñun ñu war a xam ne kon bëggante ngir yàlla du ànd nii rek bokk mbooloo wala bokk koñ wala bokk wala bokk waaye mbir la moo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko waralal moom bëggante ngir yàlla dafa am ay ngëneel yu ci nekk yu bare bare yu takku ñi nga xam ne dañoo bëggante ngir yàlla bokk na ci ngëneel yi ñuy am ëllëg yowmal qiyaam su fekkente ne li ñu doon wax ci ñoom dëgg la yàlla rek moo tax ñuy ànd yàlla rek moo tax ñu jàppante yàlla rek moo tax ñu bëggante takunu wujuhum nuuran yowmal qiyaama bu ndee ba dekki liñ leen di njëkk a xàmmee mooy seen kanam yi day leer xam ngeen ne loolu xadis la ay nit ñu nga xam ne ñu ngi ne la toog keppaaru arsh seen kanam yaa ngi leer ba gën a leer jant te duñu ay yonent duñu ay mursal duñu ay nabi waaye sax yonent yi dañoo dañoo ñee ñooñu saxaaba yi biñ nee yonent bi saa salaam wax ñu ñooñu ñooy ñan mu ne mooy ñi bëggante woon ngir yàlla kon ànd bi ni ànd nii ci àdduna liggéeyal yàlla subhaanahu wa taala ci toolam bi li tax ñu war a ànd li tax ñu war a jàppande li tax ñuy liggéey mooy bëggante ngir yàlla ñaareel annahum fi zilli arshillahi yawma alqiyama ñaareel ci ngëneelu bëggante ngir yàlla ñi bëggante ngir yàlla ëllëg dañuy nekk ci keppaaru arsh subhanahu wa taala yawma alqiyama ñetteel an allaha yuhibbuhum ñoom ñi bëggante ngir yàlla bokk na ci ngëneel yi am mooy yàlla bëgg na leen mbokk yi fii nu toog ku xalifa général murid yi bëggoon lu ñuy xalaat ci yow kan ma may tontu kuy tontu fii ñu toog ma ne ku xalifa général murid yi bëggoon fii ñu toog ni mu bëgg la muy dëgg lu ñuy xalaat ci yow fii ñu toog ni taalibe yi danañ fexe ne kii texe na waaye bu fekkoon ne dangaa ñàkk bu fekkoon ne amoo kër bu fekkoon ne amoo oto ah ñu ne yëpp dala koy jox waa fii nu toog ku Macky Sall bëggoon nag waa kon ku yàlla bëgg nag ah allahu akbar kon yal na yàlla bëgg kon ñooñu yàlla da leen di bëgg comme niñ ko nettalee ci xadis benn waay bu jugoon rek ci naaj bu tàng jër amul saret amul mbaam amul lu mu war mu xuus tàngaay bi génn dëkk jëm dëkk yàlla yónni benn malaaka malaaka bi yor jëmmu nit ñëw koj waa ji li ko foo jëm mu ne ko dëkku sàngam loo fay uti dafa am sama benn waay bu ma fay seeti waaw naaj bi dafa tàng lu tax ngay dem mu ne dama ko bëgg ngir yàlla xanaa da ngeen am lu ngeen bokk ci ay mu ne déedéet dama ko bëgg ngir yàlla rek ma jóg di ko seet lan la waajooju wax waa ji man yàllaa ma yónni ci yow yàlla nee na bëgg na la comme ni nga bëggee waa ji kon gis ngeen xoolal fan la waa ji amee loolu ci ziyaare ay mbokk jullitam kon ñiy ziyaare jullit yi yàlla subhanahu wa taala bëgg na leen ñeenteel mooy anna man ahaba allaha wa ahaba lillahi yajidu xalawata al iman ñeenteel bi ñu bëgg ngir ñu bëggante ngir yàlla di am képp ku bëgg nit ngir yàlla bëggoo ko ci lenn sa mbëggeel yëpp yàlla rek moo ko lal mooy yow di nga yëg bànneexu ngëm yàlla ci sa xol ku bëgg te li nga bëgg dara wala lu ko lu dul yàlla kese foo toll da ngay yëg bànneex da ngay yëg neexaayu ngëm yàlla subhanahu wa taala te xam ngeen ne loolu tey lu ñu manqué la li nga dégg yenn saa benn daal maa ngi julli mais yëguma dara daal maa ngi woor mais du ma yëg dara maa ngi jàng alxuraan du ma yëg dara te jaamu yàlla yi nit di def nit dafa am lu ñu ci war a yëg su fekkee dañuy jaamu yàlla de duñ ci yëg dara rek nañ xeet nañ seetaat jaamu yàlla boobu nuy def ki bëgg te yàlla rek a tax mu bëgg day yëg bànneexu ngëm yàlla ci xolam day yëg yokkute waa day yëg bëgg yàlla ak bëgg yonente alayhi salaatu wassalaam juróomeel anna mahabbata allah wa fillah tuujibu liman alladi yujibu duxulul janna bëgg ngir yàlla day yokku ngëm waaye ngëm gi nga xam ne mooy tax nit dugg aljanna xadis la laa tadxulul janna xatta tuuminu wala tuuminu xataa taxaabu gis ngeen du ngeen dugg àjjana lu dul ngeen am ngëm du ngeen am ngëm yàlla lu la ngeen a bëggante kon bëgg julit yi bëgg say mbokk julit lum lay yokk lay yokk ngëm ngëm googu lan la lay jural nga dugg àjjana doo dugg àjjana lu dul nga gëm doo gëm lu dul nga bëgg julit yi kon bëgg sa mbokk julit waajib la ndax mooy tax nga dugg aljanna kon mbokk yi juróomeel ci ngëneelu buy wone ne nit dafa war a bëgg ay mbokk jullitam ngir yàlla ndax loolu daf koy yóbbu aljanna juróom benneel mooy al uxwa fillah jaamiatul iman kama qaala taala wa in taabu wa aqaamu salata wa aatu zakata fa ixwaanukum fi diin bëgg say mbokk ngir yàlla moo tënk ngëm lépp yàlla moo ko wax ci Qur'an yàlla nee na ñii bu ñu tuubee ñu taxawal julli ñu joxe azak seeni mbokk lañ kon jullikat yi ñiy joxe azaka ñi tuub ñooy sunuy mbokk lan la la bëgg a wax loolu ñen ñoo koy def gis nga saxaaba bi muy xeex ak benn yéeféer ñuy dóorante jaas yi di dóorante jaas yi ba ci yàgg rek waa ji sànni jaas yi daan ne ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah daf koo xëcc taf ci dënnam ne ko lii rek moo taxoon may xeex ak yow bi waa ji tegee jaas ji tugu tuddub seede bi rek xeex bi daal di jeex moo tax yàlla mu ne bu ñu tuubee ñu julli ñu joxe azaka seeni mbokk lañ kon ñun ñii def loolu ñooy sunuy mbokk est-ce que kon bu fekkee ne ñooñu suñuy ñooy sunuy mbokk war nañ leen a hijra war nañ leen a gàddaay war nañu am ak ñoom ñagg-ñagg war nañu am ak ñoom war nañ am ak ñoom te yàlla nee na ñoo ñooy sunuy mbokk kon bu déggee aaya bi rek danañu defarwaat duggaat ci ruq yi parce que xam ne ñi ñuy bàyyi ginnaaw wala ñi ñuy séexlu yàlla nee na ñoo ñooy seen mbokk ñoo ñooy seeni mbokk fa ixwaanukum fi diin juróom-ñaareel mooy anna mahabbata allah almahabatu fillah alaamatu alqubul wa unwaanu tawfiq bëgg ci yàlla subhaanahu wa taala mooy màndarga buy wane ne yow yàlla nangu na la ngay bëgg say mbokk ngir yàlla dafa bokk ci alaamatu alqubul yàlla nangul na la yow subhaanahu wa taala waaye waa unwaanu tawfiq day wane ne yow yàlla defal na la tawfiq ngay bëgg say mbokk ngir yàlla jàngeen yonent bi saasam daan toog ba caag mu ne nit aljannaa ngi ñëw benn waay dikk ah ñu ne kon de kii la ñu toogaat ba ci suba yonent bi ne nit aljannaa ngi ñëw waa ji ñëwaat ah kon de kii la benn waay ne man kii dinaa xam lu mu def ba dugg àjjana mu dem këram guddi ne ko dama am jafe-jafe ak sama waa kër mu bëgg nga fat ma ma fanaan fi ñetti fan mu ne ko bismillah mu def fa ñetti fan yoo xam ne waa ji gisul ci moom daal loo xam ne yéem na ba waa ji looloo ko yóbbu àjjana comme jóge jàkka ja gee ñëw naafila ba fajar jàng alquran su jóot di jooy xëy woor moom daal gis na waa ji simple tëdd na ba heure qiyaam jot mu jóg sangu jàpp julli ay rakkaam def li muy def fajar jot dem jàkk ñëwaat toog mu ne man daal sëñ bi xam nga lu taxoon mu ñëw fi aw moon benn problème dama doon xool yow nooy jaamoo yàlla guddi ndax damaa toog ci place barab yonente nit aljanna ngi ñëw nga ñëw ñu toogaat ci ëllëg sa ñu ne nit aljanna ngi ñëw nga ñëw ñett kay ñett yëpp yonente bi ko wax ngay ñëw mu wér ñu ne yow la waaye nag wax dëgg yàlla yaakaaroon naa ne yow doo nelaw guddi mii li ma gis nii nga def mu ne ko déedéet du loolu man sama xol bi dama cee dencalul jullit lu bon sama xol bi dama cee dencalul jullit ñagg-ñagg man jullit yëpp samay mbokk lañ gis nga kon loolu moo ko yóbbu aljanna kon ndeke ñun la léegi rek léegi léegi léegi jàng nañ innamal mu'minuuna ixwa waaye léegi lu ñu yàlla nattoo mooy aayeeg hadis dañ koy jàng rek neexal baat te juit mais kenn du ko dund loolu mooy suñu problème ci àdduna bi tey yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan wax saxaaba yi dañ leen a rawe Aboubacar da leen a rawe shay'un waqara fi qalbi mbir moo xam ne ci xol bi la sax saxaaba yi nee nañ alquran da doon wàcc ñoom dañoo am iman alquran di wàcc ñuy jëfee ñun nag dañoo am alquran di xaar iman foofu mooy suñu différence ak ñoom ñoom dañoo am iman alquran di wàcc ñuy jëfee ñun am nañ alquran kaamil waa ngi nii mu saf kaamil amu ngi nii suñu kanam waaye léegi lan mooy suñu problème añu amuñu iman ñoom dañ doon dund ay à la lettre te léegi léegi léegi léegi léegi su fekkee tëb naa lu baree baree bari pour ñii liñ ma may ni mu gàttee ak ni ma koy naqarloo information yi dañ cee joxe ba mu doy ñu yokk benn xeer la bu may sa lancé amir aqwalun fil uxu fil uxuwa ay wax yoo xam ne saawee ko wax ci mbokkoo ku njëkk mooy amirul muminin Umar nee na iza razaqakum allahu azza wa jal mawadda imra'in muslim imra'in muslim mu ne fatashabbithu mu ne bu la yàlla wërsëgale nga am benn cofeel ci sa mbokkam jullit na mu ne saxal ko de bul ko dagg mukk mukk mukk xoolal ñun tey amuñu ko lëre koo xam juróomi at ku nekk bu juróom benneeli at nga wëlbati paas bi da ngay jël sax nit jële ko ci bidaa yi indi ko ci sunna jàngal ko ba mu fer ij ba mu mën lépp ba mu nekk imam mu tourné page waaw hijra la ngeen daje jàkk sax nga ne ko asalaamaaleykum mu ne nii billaahi wallaahi taala te xoolal Omar lu mu wax nee na loolu na sax Omar moo wax loolu Omar nee na ba tey Omar nee na damay tëdd guddi xalaat sama benn mbokk kii gëj naa ko gis nee na guddi gi day nekk ci man juróom fukki guddi damay yàkkamti suba jot ma sol sama daal seeti ko mu ne bu ma ko njëkkee gis ci jàkk ji du ma ko bàyyi lu dul ma doqoog moom lii ñii ñoo ko wax te ñoom dañoo bëggante woon ngir yàlla ibnu mas'ud nee na iza xaraja ila ashaabihi moom bu génnoon ci ay soppeem sahaaba yi lan la leen di wax antum jalaa huzni yéen moo leen gisee rek sama naqar dañ yéen moo leen gisee rek sama xat-xat dañ moom bu génnoon ba gis mbokkami sahaaba yi ne leen yéen bu ma leen gisee rek sama xat-xat yëpp dem omar ul faruq iza laqiya aboubacar qabala raasahu omar bu daje woon ak aboubacar day foon bopp bi jëlee nañ ci ali radiallahu anhu dafa amoon benn mbu mbubb boo xam ne kaana yuksiru lubsahu mbub moo xam ne koy sol lu bare bare bare bare bare bari benn bis ñu ne ko yow sa mbub mi xanaa moom rek nga am yow Ali mbub mi rek ngay sol mun leen Omar ma ko may Omar ma koy sol lu bari ndax mu gis ko Omar moo ma ko jox ma koy sol lu bari ngir mu xam ne mbubam mii fonk naa ko ni ma ko fonkee Bilal ibnu Saad al ashari yaqul axun laka kama laqiyaka zakaraka kullama laqiyaka zakaraka bi xazika min allah bilal ibnu saïd nee na sa mbokk mooy koo xam ne saa yu dajeeg yow fàttali la yàlla saa yu dajeeg yow fàttali la yàlla nee na kooku mooy sa mbokk nee na du koo xam ne saa yu dajeeg yow wada a fi kaffika dinaar ñun sunu mbokk ci jamono bi ñu nekk mooy kullu man laqiyaka wada fi kaffika dinaar mooy koo xam ne boo dajee moom mu daal lay nuyoo 1000 francs 2000 3000 4000 kooku mooy sa mbokk kooku saa yoo ko gëjee gis woo ko téléphone soo ko nammee seeti ko parce que day teg sa loxo dinaar xoolal kii moom lu mu wax nee na sa mbokk mooy koo xam ne boo dajee ak yow mu fàttali la yàlla waaye sa mbokk du koo xam ne boo dajee ak yow may la dinaar kon gis ngeen ñun dañuy wëlbati mbir yi ñuy wëlbati mbir yi Hasanul Basri nee na sunuy mbokk mooy ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom ci yàlla ñi ñuy fàttali yàlla di ñu fàttali allaaxira di ñu dëppuloo ci mbirum àdduna nee na ñii ñooy sunuy mbokk xam nga tey li ma doon wax léegi ñun niñ dëppe mbir yi mooy tey ku fiy fàttali ay mbirum allaaxira dañ naan yii bul dem këram de ay boo demee këram dina la muurloo dina la julliloo da nga mel ne julli kaata benn femme nee na ma kër gu ma doon liggéey dama muuroo muuroo muuru ba ñor ndax kër ga ku fay liggéey day muuru mu ne dama muuru ba tuuti ma ñor xalal allahu akbar benn borom xam-xam mu ne ci jamono seddaay mu ne dafa yéemu ci jamono seddaay mu ne ni jigéen gi dafa ragal sedd muuru mu ne ragalul safara pour mu pour muuru déggu leen wax bi de déggu leen ko de Sénégal bu seddee ñuy muuru lu tax ñu muuru seddaay pourtant yàlla nee na ku muurul ma yóbbu la ku muur ku muurul dama la yóbbu safara xoolal nit ki ragal sedd muuru ragalul safara mu réeku kon mbokk yi bëggante ngir yàlla omar nee na aleykum bi ixwaanikum aleyka bi ixwaanik na nga dem ci say mbokk jàppal ci say mbokk rawat suñ nee mbokk mooy ñi ñu waxoon sànq innama almuminuuna ixwa mu ne ngeen dund fi aknaafihim ngeen dund seen wet jàppante ak ñoom fa innatum fa innahum zinatun fi raxaa wa iddatun fi lbala say mbokk mooy koo xam ne su neexee nga koy gis su mettee nga koy gis kooku mooy mbokk ali ibnu abi talib mu ne karama allahu wajahu alaykum bil ixwan fa innahum iddatun fi dunia wal axira ala tasmau ila qawli ahli l iman alquran moo ñuy nettali ali mu ne na ngeen jàpp ci seeni mbokk na ngeen ànd ak seeni mbokk mu ne gis ngeen nit ñi nga xam ne ñi ngi jëm safara bu ñu duggee safara xam ngeen lu ñuy wax fa ma lana min shafiin wala min sadiqin hamim jottali ñu portable bi kaay kaay kaay kaay salaamaaleykum ëpp kii day nelaw kaay kaay kaay kaay mbokk yi imaam ali nee na gis ngeen même waa safara bu ñu diggee safara dañ naan ñun amuñu ku ñu ràmmu tey waaye amuñu benn xarit amuñu benn mbokk fa ma lana min shafiin wala min sadiqin hamim wala sadiqin hamim kon mbokk julli dañu war a ànd ngir yàlla bëggante ngir yàlla soppante ngir yàlla jàppante ngir yàlla xaalid ibnu safwan rahimahullah nee na bu nit ñëpp tëlee ci uti ay mbokk yow bul tële pour am ay mbokk bu ñëpp tëlee pour am ay mbokk su ngeen jàngee alxuraba dañ doon wax ne islam bi muy commencé dafa tumaranke buy àdduna di waay jeex day tumaranke mu ne kon ñi tumaranke nañ jàppante ñoom xam ngeen même problème Mali bi li ñuy wax waa Sénégal nii sunni di nangam nangam di leen menacer di leen terroriser mooy ñàkk a jàppante bi rek mais buñ jàppante woon avant ba ba balaa boobu léegi lii di ñëw kon kenn du leen terroriser naan leen ñoom ak nangam nangam di leen joxoñ baaraam ak yenn saa yi ñuy tudd seen tur ak yenn saa yi ñu ciy woo kenn ci ñoom. parce que defuñ ci Sénégal lu ñu leen terroriser lakkuñu fi ay kaar kenn mus ko gis tojuñu fi ay école tojuñu fi ay organe de presse rey ñu fi ay policiers comme 6 février tey mooy kii bi 16 février tey mooy mooy anniversaire bi ah defuñu ko fi te association is li ñuy wax association islam def nañ ko fi ay tarixa toj nañ fi ay organe de presse rey nañ fi ay nit kenn mus te dégg ñu ne ahlu sunna rey na nit ñoom lan la ñuy def tabax ay jàkk bënn ay teen waaw waaw tabax ay jàkk bënn ay teen defar ay nit ay école tabax ay nit jàngal ay nit tëj ay baar ñoom loolu lañ def loolu kese ñun li baaxal dëkk bi yëpp waa ahlu sunna ñoo ko fi def ñoo jàngal nit ñi ñoo leeral diine ji ñoo leen yar ñoo leen wàññi ba tey Sénégal gi li rëcc rëcc tey boo demee fi gën a rëy ci Sénégal nga xam ne ay yahut ñoo fa daan génn ak ay franc-maçon ay lu kenn xamul fa lañ samp jàkk mooy université waa ji di jàng alxuraan di jiite di wax français di wax arab te koo xam ne bu génnoon ab saay saay la naroon mu ngi noonu kon kay fii ñun liñ fi def kenn defu ko fi ñun rôle yonent yi lañ fi def rôle yonent yi lañ def Sénégal mooy génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer fekk ay nit yu ñu tàggat jëme leen safara ñu dëpp leen yóbbu leen aljanna ñun loolu lañ fi def loolu loolu dafa war a leer ñëpp ñu wax ko ñëpp dégg ko ñu wax ko ci télé yi wax ko ci rajo yi ku ñu woo débat nga wax loolu waaw ñun amuñu luñ ñu joxañee baaraam amuñu ko amuñu ko baaraam yëpp mun lañ leen joxoñ fu nekk fi mu nekk ni ci Sénégal kër gu nekk mun nga faa duut baaraam am na lu ñu def ci Sénégal ba mu des ñun kër gu nekk nag laa wax kër goo xalaat rek kër googu laay wax am na lu ñu fa def ba mu des ñun ñun lu baax rek lañ fa def loolu laa doon tënk incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu